allah akbar kabir ndeysaan da ñaan si mango yi di daanu da yëg si mango yi ba si bu diisee rek mu daanu ci biir san kon yaakaar nga ne cosaan ak aada muy lamb san dellu si waat na si réew mi waaye yaakaar naa ne léegi la gën a léegi lay gën a yokk parce que gis naa ne xale yi astama séeréer yi ñu ngi def loo ne ah garaaw na fi garaaw oye nañu ne ndeysaan def la lañ la daan oyee si lamb bi lamb nekkee démb. oye daal nekk gis nga léegi na boole ci daan oyee. yow si géew. lan nga ñu nga daan bëree ñoom. ñu si mel ni ñoom Jalang Kumba Demba loolu yëpp filmé mel ni Matar Jaaju li si mel ni ak ñu nga wax noonu ñan ak nga fekke woon ñu naan bëri label ci Serekunda vertical prera boobu label maa ngi woon pour Serekunda def garage bi bu sampa taa bi noonu boobu mooy woon label ñu sax créé nañ boobu waaye waaye ndeysaan suma papa suma nijaay naka lañ la daan kañe si lamb jërëjëf nekku mbokk yi history dekk si waat na li ngeen ndeysaan foog naa ne xam-xam solo waat nañ ko ba doylu ko nekkut daf daan bëri te am na lu defoon si lamb te moo ñu ko waxal si kàddoom si gémmiñ ndax ndeysaan kilifa yi dañ bugg a làmb kilifa yi dañ bugg muy wax yëpp macha allah boo ko xoolee rek nga xam ne du tey la gis démb bu muy bëri loolu la paa gis moo tax tey mu koy nettali macha allah moo tax nit ki nga fekkee loolu rek nga mën a nettali macha allah. te dégg nga. borom lewaatoo paa bi mu ne ndeysaan mbër la moo tax mu ne yàqu dundal làmb. yaa delluwaat làmb moom si si lalam bi mu ngi toog amul benn bés bi nga xam ne alxames dina jot du ibbi rajoom li nga xam ne mooy programme yi Leewtoo di seetaan démb lu daan xew ak barki te tey loolu xew na damul bu duggaat si muy toog néegam toog si lalam bi ak jabaram yeeg doomam yi di seetaan li nga xam ne loolu la daan def démb alo alo li ngeer am na loo def si Gambia waaw ñuy ji di rek macha allah lislaam bi leen toppa den ñoo gis lu mu def ñu nekk ci gannaawam macha allah ndaxte yàlla xam na ne dëgg dëgg dama dee ruus ma dee dox si mbedd bi ndax ay kilifa dong ñoo ma dee stop naan ma dëgg dëgg li nga def yaa ngi góorgóorlu trial bu baax ay pa ay oustaz macha allah maa ngi leen di gërëm di leen seetal nekkul li sama jëmma ji di taxaw di wax waaye li nga xam ne saa su ne moom laa leen di indil si programme yi Leewtoo alxames bu jot si GRTS loolu moo leen doy loolu moo leen ñor ba ndax ñi mu tuddane fii ñoo daan na leen ñooñu tamit ndaanaan leen woon waaye dafa mel ni ay ndaanaan da daanaan ñoo doon bëre fan ndaanaan yooyu macha allah tey ñu toog fee kenn koo xam ne yaramam daw na xelam dellu na si démba li nga xam ne moo doon am si arène yi nga xam ne macha allah tuddoon na ko toj na bu Banjul dellu toj bi nga xam ne moo nekk Dandemaayo dellu toj bi nga xam ne moo nekk Esow si gannaaw Dandemaayo ba tey Mayemba. dégg ngeen arène yi nga xam ne tuddoon na ko ne bëri na fa te jël na fa ay ndam macha allah ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yal na fi yàgg te wér lii nga xam ne moom la doon def di aada ak cosaan réew maa ko bugg a njiiti réew maa ko bugg ñëpp a ko bugg gis ngeen li nga xam ne mooy dox ba tey si biir arène bi mooy dëgg galgal dertarti <laughs> bés bu ne ñuy gën di jàng rek macha allah bëre baa ngi gën a neex guddi gi di gën a sori bëre gi di gën a neex jamono yi mbër yi seen yaram yaa ngi tàng ku nekkaa ngee dugal lewaatoo gaa ngi fële ji fële si ñaar ñee dafa mel ni nag déggat si lingeer kooku moom mooy mbalangaar lañ koy kañee moo galgal waa ji ndeysaan déggarti ko waaye yaakaar naa ne galgal déggarti boobu set na te leer waa ji la seen na wecc dafa mel ni non dama ko foogoon ne gars yi Banjul yi la waaye dafa mel ni dafa nuroo booy bi rek ah ba tey gars waaw gaay yi saako xam la waaw ba tey gars yi saako xam la macha allah ñoom it ba tey ñu ngi góorgóorlu te tey daal gars yi Banjul yi bëgguñ koo bàyyee gars yi KMC ñoo fekk si leen nag ba fii di daan di daan di daan rek <laughs> war ngeen koo bu baax a baax de macha allah Maki yi Gambia Radio and Television Service GRTS ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waaye nag tey nag tey bés la bés bi nga xam ne bés la si bés ay mbëri caméra parce que man ñu ma nekk di bés fii mbër yu bëri ruuf gis naa leen fi mbër yi nga xam ne ñu ngi bëri bëri sëgg gis naa leen fi yi bëri mbapat mbër yi bëri bëri dóor gis naa leen fi waaye yaakaar naa tey yëpp dañ ko généraliser indi ko muy benn bëri bëri mbapat rek moo fi am tey li ngeen moo tax bu lii amee Matar promoteurs yi dañ war dee teew because uh, man bëre bi xam nga nan naa ko tuddee nawetaan laa ko dee tuddee always su façon bu rëy amee because yow promoters bi bu dee yaa ngi yow promoteur bi bu dee yaa ngi toog di seetaan di nga mun a xam fii yow yan ngay mun a jël jox leen combat su ko defee macha allah ñoom it ñu bëri man daal lii nawetaan laa ko tuddee fii la ñooy tànnee daal ñu gën a mun a bëri macha allah nga xam naa ne tamit anyway man faaw mu am suma club bi boppa daal allahu akbar kabiram loolu am na solo bëre yu mel daf ñoo génneel laaj cosaan ak aada waaye yaakaar naa ne am na bëri bu métti bu si biir géew bi diggante ki nga xam ne oh ndeysaan ñu ngi xappante suuf ñu ko nekk ngay tuur sa suuf waaye arbitre bi muy Sidi Thior am na li mu wax a gaay arbitre bi Aliou Ndour foofu na si beneen Aliou bi arbitre bi oncle Ndiouk am na foofu ñoom ñëpp ndeysaan muy ñetti bëri yu nga xam ne moo xew si biir bi tey ku nekk di def sa morom li nga mun ñoom nekk nga téye sa loxo jox gannaaw mu sol li nga xam ne mooy ngemb lu jël ay téere yi nga xam ne moom la takk lii ay téere yu weex bu ñu jox kanam moom it ndeysaan waaye dafa mel ne dañ tegantel bopp tegante li nga xam ne mooy loxo ñoom ñaar ku nekk di fokk sa morom baaraamam waaye yaakaar naa fokk baaraam yi bëree ko gën fokk baaraam yi bëree ko gën bëri leen. ndeysaan ñun ñëpp ci bëre fi xew ah ndeysaan ba léegi ah, daw na topp na ko topp na ko topp na ko ah ndeysaan daw nañ ndeysaan du génn bëri dañ bëri ndeysaan bëri si ngelaw na ko loolu loolu la waaye su ngeen génnee ndeysaan li nga xam ne foofu la suuf bi nekk dañ taxaw parce que am na yeneen jël yoo xam ne suñ la ko daanalee doo nekk si biir suuf bi mun naa